nangam rek seen gi ne nangam rek ak bisu mbégte la bëgguma wax ak yéen li ma wax bismillah ñii dañuy nuyoo Karim gëj naa laa gis sëñ Ousmane ñu ne rek Karim ñun tamit tax ñu moom xam na xale yi dinañ bañ a déranger dañuy bañ a kii déranger moo tax ah Sow Sow na nga def Sow Sow am rek yàgg fi lool loolee jëwee Thank you. waa ah, léegi ñooñu ñu mën a ah, amee ah. lu taxoon ñu may ñu naan ma dafa rakam. may leen ko may leen ko siyaar nga xam nga liggéeyloo dara sécurité bu ma topp. ko benn sécurité topp la waaw. pousse pousse. fekkoon dañoo nekk ci biir mbooloo ngeen am liggéey waaye nekk ci biir mbooloo. voilà